Bouba ñu ngi laa dalal ci programme bi Bouba waaw ah, laa dal di sant di la dal di gërëm ah, mm-hmm. dal di sant tam ah, suma naataango yi mm-hmm. ku nga xam ne mooy saabali nekk suma mag ñu liggéeyoon tam mm-hmm. ah, si football project yu bare bari yu nga xam ne tam waroon nañ see dal di dox bu si mujjee woon wala dal di xool football at back lalam lan lam dal di jur at lan nañ ko dal di safara di dal di sant tam suma mag ci tam bu baax a baax a baax comme ni na ko waxee rek pratique bi warta dal di nekk lu nga xam ne mooy politique rek wala leneen wante ne tam lu nga xam ne football am na cëram si réew bi lu nga xam ne mooy health lu nga xam ne mooy ah, sécurité ak lu nga xam ne mooy éducation. Mm-hmm. Ah, noonu la football amee cëram si lu nga xam ne mooy réew. léegi mm-hmm. eh, ñu ngi la dalal comme ni nga ko waxee rek soo gisee tey ñu ñëw because ah, gis nañ recently li nga xam ne mooy suñ football team bi of course national team bi ñu ngi amoon game with. um, Togo uh, both ah away and then uh, ñu ngi amoon home game waaye nag home game bi nu mu fa demoon uh, mooy loolu tax na ba ñu bëri ñu ngi mere li nga xam ne mooy suñu scorpions yi uh, moo tax tey ñuy ñëw waxtaane lii ñu xool naka lañ mën a def ba saafara tamit xool problème bi fu mu nekk ndax football fédération bi la Euh, GFF wala tamit ndax football si ñu am problème wala kooj bi la wala lan exactly moo <laughs> euh, tax because tamit mun nañu xool tamit si fans yi loolu tamit euh, beneen am na beneen waxtaan bu jéewa ci um, site si fans yi tamit monsieur Sabally ñu ngi la dalal ci programme bi lu ma la bëgg a laajte force mooy gis nañ ne GFF ñu ngi taxaw depuis 1952 of course am na lot of um, games yoo xam ne ñu ngi ko play waaye yàgg nañ di séentu li nga xam ne mooy um, Scorpions yi ci li nga xam ne mooy African Cup of Nations waaye gisuñ ko ñu ngi amoon yaakaar ci li nga xam ne mooy this new team bi xam ne euh, moom lañ yaakaaroon ñoom ñooy dem waaye dafa mel ni waaw bàyyi ma ñëw rek dafa mel ni moom lañ yaakaaroon ne ñoom ñooy dem waaye dafa mel ni signal suñu nekk di gis right now ah, dafa graw trop lan nga gisee GFF balaa ñoo ñëw ci football team bi well uh, man si football lay wax not necessarily GFF. Well, boo saya, mun la wax football GFF. Wah, waaye mun ma dugal si GFF straight because man xam naa dinaa GFF. so jawul ñu soobu si. football la ñoo wax. wax nga ne am nañu federation like half a century ago. Uh-huh. Uh, mënuñoo am any impact in football. lu lu daw yaram la. Uh-huh. suñ football mau gën a si àdduna Yip, yëpp. te Gambia man dama ya gak si football. kon uh-huh. football dama ko dunda moo tax su may wax gay di bugg stop ma mer. because man suma life hear football kenn mënu maa stop from talking about football depuis time bi ñoom biiri di play ak ñoom Ivory Coast boy ñoom suñ commentators yi di ñuy égal ne Gambia moo am di upper hand fekk ñu ñoo ñu ñoo toroxal ba ba a ñun dafa mel ni ñu ngi gën a nasax sax di dem ante loolu dafa garaaw because uh, Buuba Jallow dafa wax leena football is not just entertainment am na an impact on employment on security on development itself talent la boo xam ne ñu ngi ko am yaa ngi doon wax yëfi yëfi GFF la ndax fans yi la ndax footballers yi man li ma gómbe góom mooy footballers yi doo leen mun a blame talent baa ngi fi man isina Alhas Diouf ak Alassane Ndour ñëw stadium fii seetaan suñ football ñu ne ma Sabally talent bi ngeen am fii Gambie ñun amuñ ko Sénégal te man loolu gëm naa ko lan moo manqué mooy management of football Ministry of Youth and Sports ak di Football uh, Fédération mm-hmm. GFF. Mm-hmm. xam nañ ne uh, nguur gi ñoom tam am nañ uh, des na daal si lu ñoo lu ñoo def si football. Mm-hmm. lu ma lu ma si dee bañ mooy rek di géem a blame government. ne government nekkuñ di play seen part government def nañ everything they can do in football waaye successive managements of the Gambia Football Federation defuñ seen liggéey ñu ngi fa di politique di xeexante di géem a settle scores ba amuñ di ut xaalis ba amuñ time pour create that avenue that opportunity pour ñu mun a harness talent bi nga xam ne yàlla def ñu ko may am nañ fi ñoom Zico seen time ñu àndaloon si si si youth football ñu dem nañ ba di play World Cup di nekk in the best leagues in Europe ban technologie lañ soxla fii Gambia buñ amul bu ñoo mun a use as an excuse pour mu mënuñoo create ay ñoom Neymar ak ak ñoom Messi ak ñeneen ñi this is a very sad situation waaye lu ma si gën a naxari mooy nguur gi fu mu nekk nii euh, position bu ñu jël si football. Mhm. man neexut ma. Mhm. because da nga ñëw half a century Gambia mënuñoo am impact. Mhm. nga ñëw rek gars yi ñu la. waxal la ay affaire nga ne doo leen interfere doo leen interfere xanaa FIFA ñoom ak Gambia. ñu yaay sovereign republic. suñ gisee ne suñ football nu moo demee kontaanuñ si nguur gi war naa mun a am sañ-sañ bi pour jël ay jéego pour régler loolu. at least nguur gi suñ bëggutee def loolu sax doo ñëw rek force hand nga ñëw ñu appoint the minister of youth and sports nga ne we are not going to interfere what do you mean it's basic human psychology ne nit sa xaleel sax soo ko bëggutee dóor sax soo amee et rek su gisee et bi dina gën a dina gën a sawar si lu moo def so nguur gi war nañoo jël set GFF moom man dema lose hope si ñoom foog naa ne ya war nañoo def leneen ñu wécci ñuy ñuy doxal football. si si anami GFF. te maa ngi ñaax nag ndaw yi. nañ jóg si yëfi football. seen affaire bi yëpp is about politics politics. waaye politique fi football si loolu lañ waroon a gën a concentrate sax. nañ jóg ñu nangu suñ football bi. ñu manage ko. because man dema góom ne. youth development mënut a am fii su dee suñ football bi jëmul kanam. ok saa wala nañ ñëw si waxtaan bi bu baax daba sa euh, sa gis-gis si euh, GFF. ak tamit li nga xam ne mooy Gambian football. ok man eh, maa ngi laa nuyu Ansu eh, di nuyu suñu broda Buba. dama mm. ko di follow regularly on social media. ñu mm-hmm. ngeen nuyu docteur tam fu mu di nekk maa ngeen nuyu Koto. Mm-hmm. you know mm-hmm. Saabs. Eh, man su ma gis-gis si current GFF bi man foog naa loolu wax naa ko several times I think ñëwoon naa fi time yi election bi I spoke to football stakeholders ne if they go there to elect. Mm-hmm. na guy elect people based on merit. Mm-hmm. waaye bu neka based on sen personal individual interest. Mm-hmm. te dem na ñëw na yëpp soo xoolee Gambian football lu si gina daw yaram mooy ñi fa nekk ko nekkuñ di jite football because of interest yi askan bi wala interest yi ndaw ñi nga xamne ñoo jël football def ko métier waye ñom ñep ku nekk sa poste mo la mo la mo la jara mom mom mom nga put force because gis nañ fi lu fi happen si goal project. bi toilette boo xam ne a pax la nga ne one point five million ñoom seen kër yu gars yi sampa sax mm-hmm. amul kenn ku si sampa kër mm-hmm. bu aaga two million dollars wala toilette nga sampa toilette sa biir kër one point million dollars mm-hmm. loolu mënuloo koo justify su ko fi fa justify sax Gambian bi ordinary Gambian bi xam na kër ñaata la so loolu mënuloo ko wax kenn mu d'accord si nga xool ñu nekk di administer football from the president coming to the first vice president all these people dañ am uh, first vice first first president of uh, the GFF president I have so much respect for him waaye su ñëwee pour wax dëgga with regards to football Kaba ba mu involvement la def si football actively ba tax mu war a ñëw nekk président Gambia Football Federation su nekkee ne nekkutoon politics mhm. understand nga he could in other in any mhm. daf doon difficult pour mu ñëw mu nekkaat fa because nekku ne like moom dafa jël xaalisam mu build up a team mu invest mu actively participate you understand xam nañ naka la ñëwee through di GFF ban team moo ko rek nominate pour mu taxaw ak ban lob yi la gaa si biir ba mu nekk I don't have an issue with that waaye man dama gëm am na ñu nga xam ne tey ñu fi nekkoon ñoo xam ne dañ jox seen bopp seen life seen everything football people like ñoom Biri mënuloo am fédération nga xam ne nii not only in Gambia but player taxaw man sax xool nag nangu ne yow danga nga am football kooku Gambia ak lu mu mën di dem football suñ ko joxutee cër boobu sax Gambia du am success si football. Mm. man la sax until ñu recognize this kind of people. Mm. yaa ngi am fii time boobu ñoom jotoo Cissé. Mm. ñun ñëpp xam nañ dëgg la Gambia time boobu qualified woon. waaye these are people ñu nga xam ne nii soo leen xoolee di nga xam ne ñii. dañ bugg a dañ doon football because dañ bugg a seen dañ bugg a réew bi ba pare day love the game. because time boobu noonu football yi Gambia amul xaalis nga xool time boobu club honest ñu fi nekkoon daan invest seen xaalis si football dañ ko doon def parce que dañ ko bëggoon ñoom Obi ñoom Gabi Socé ñooñu ñoom Babou Cissé ñooñu a am returns from uh, business so soo ñëwee nag uh, suñ national team bi lu Sabali wax rek laay wax Ah, football yi Gambia mo mag man waye man buma xamé suma bobé légui kuma xam xam na ne football man every match ma mersa ne né duma démat waye football su ñëwee damaa dem because man naturally dama bugga football play na ko for fun time ma néké xalé way naturally dama ko bugga ba paré man dama bugga Gambia like any other country bu qualify that's the same way la bugga Gambia mu qualify because last game mi sax ma ngi wara a liggéey waaye dama war am pour dama julli tour rek ma jógee office ma dem stadium just because I want to go and support to make sure team bu mu win understand nga waaye soo xoolee tamit lii mënu tax continuer like mënuñoo nekk di dem ba pare lu ma dee gën a baful mooy Gambie su amee draw ñu ne nañ tàccu ñu celebrate pour man loolu saaga la it's an insult to mm-hmm. people because ñun draw yóbbu ñu foofu noonu si stadium sa bopp celebrate le one one bi against Algeria because man loolu non point loolu def ma na xari whole country nga amee host game mm-hmm. nga am draw ngay <laughs> celebrate mel ni daba mbaa bokkuloo suñu célébrité sawale léegi man dama believe ne Aljiga Game bi dama la bëgg a rek because yow yaa nga di follow football um, question bi la bëgg a mooy um, during seen elections yu gars doon def mooy Kaba and then the likes of Malick Silla Malick Silla maa ngi gis mu doon complain ne affaire yi nu mu demoon eh, jaadut si yoon maanaam dafa am yenn politique yu gars doon def si ron pour make sure ne ñu jël Kaba delluwaat ko back na ko gisee waaw. Ah. and then and then nga wax ma sa sa gis-gis si Kaba as president of JMF foog nga ne moom dina eh, dina dina saafara problème suñu nekk di face right now. Ah, Malick ah, dafa leta feeñ si askan bi. Mhm, Malick Sylla waaw dafa leta feeñ. Mhm. daanaka moom mu ngi si youth development football bi Lamine ak yeneen place. Mhm. wante ne élection tam soo ko bëggee sumba tam foog nga génn na. ni ki xam la ni ki xam lan mooy sa lifin wante ne Malick. si last two months. lam dal di ñëw ba pare. I mean GFF soo leen bëggee jëngu. Mhm. foog nga nekk ku dëgër fit. Mhm. so spiritually. Mhm. morally non non non ay foog nga dëgër fit wante doo nekk di ñëw di laaxu. di xam nga di di laax so it's very hard si biir Africa. Uh, régime bi nga daldi koo toppal even Issa Hayatou sax bu nga ko doon daldi wàccee after ñoom Ahmed Ahmed ñoo def stratégie wu rëy rëy rëy ko so Malick Sylla dafa safoon Kaba Cissé dafa safoon ñoom Basiru soo ñoom ñëpp ku ngi dal cameraman soo leen tuuti. Uh-huh. soo a ñëw waxaa football. Uh-huh. Kaba ak ñoom nekk wayu. Uh-huh. ñoom Langton Mbong. soo yooyu foog nga jàng wante ba naa ne di media tam joxuñu leen woon nag si media yëpp newspaper si yëpp joxuñu soo ñoom. duñu leen ko waaw de weer losing battle la ba pare after the election tam. ñëwun tam tam wax wante tam fu ma bilee nekk waaw speech bi waxoon na ne. élection bi jeex na. Uh-huh. woo fa yaakaaroon naa waroon naa isi team Malick. Uh-huh. liggéeyaa gars yi wante une uh-huh. tonne. ñu ngi dal di suspect ñu nga xam ne ñooñu mosoon te bokk si gars yi. kon foofu tam lu nga xam ne mooy uh, jumte mu fa wante ne foog naa daal. Uh, stratégie bu ñoom Malick use. Uh, foog naa ne daal wokkut. Malick Sylla Malick la mu ngi doon complain mu ne um, Diaziz gars yi lan tombong tamba. ne warta bokka si GFF because of dañ ko mos a tëj because loolu is part of seen rules and regulations ne ku ñu mos a tëj warloo bokka si li nga xam ne mooy GFF and then moom dañ ne woon teamam bi was not comme qualifying enough pour ñu bokka si GFF noo ko gisee even si fraud allegation bu dafa wax 1.5 mm-hmm. million mm-hmm. demee si chamber of com uh, justice bi. Uh-huh. daf si noppi. Uh-huh. ministre bi interview naa ko. Uh-huh. Eh, xam nga. so da ngaa gis ne <laughs> most of these places. ñoom ñoom fa am seen ay waay. bakk def naa jiitu. so awloo fen fooy dem wax ko because. Ah, lu sabali waxee rek. bu ñu demee si baro baro lu wax. ha ya lon mbe fifa noma fifa e fengo fen fo dron wolen so da gis ne ne mhm. amuloo fen fu noo pénétrer mhm. amuloo fen fu noo ne faa dem mhm. ñu déglu la so that issue of lang tombon tamba lu moo tax dañ ko dal di mute so amun toon benn support system muy justice muy even code foo dem rek. Mhm. ñu dama ko dama amee objection to lu ma because in all due fairness lang tom nga xam luñ ko tegee was politically motivated. kenn mhm. xamul boppa bee geen bi. Mhm. foog naa ne bu lang was too easy an excuse pour wax ne Yaya def ko tëj xam nañu Yaya Jammeh ñu fi tëj moom. su dee ñëw ñëpp dañ leen see génnee suñ cabinet bi sax du dem so boobu nañ ko tegee moom <laughs> let's talk about my things that I'm okay, okay, okay, okay, uh-huh, okay. Uh-huh. Mm-hmm. Uh -huh. Wow. Uh -huh. wow. So lolu moy lolu moy wante case bi yëpp ñoom mal ñu ko waroon a push so mm-hmm. amutoon di legal advice mm-hmm. ak football technically bu nga xam ne ne mënoon nañoo push lu nga xam ne mooy eh, case yu gars yi am wala ñu mënoon a défendre seen bopp parce que ne uh, FIFA Euh, wala kaaf euh, muy yaay ñoom ñaar mi Kaba Bajo mhm. daf leen a uuf soo mhm. kenn bu laal seen doom soo laalee seen doom ñoom mhm. dañoo ñëw défense wante ne ah, cases like Ghana at Sierra Leone at Mali ñoom ñëpp win neen seen case against ah, FIFA wante am ñeme bi fa nga am fit waaw ñeme-ñeme bi pour jànku naa dem ba bind fi FIFA wala kaaf laajte leen lana lana lan moo waroon a xew in this case bu nga xam ne ne Lamin Kaba Bajo accuse nañ ko of fraud one eh, nine hundred thousand dollars yi bu nga xam ne fayit ko so lan mooy di ethics lu nga xam ne gofaan na loolu wante ne góoma na daf doon dal dem so ñoom Malick ñoom ñoo war a bileen seen boppa daal mhm. I don't know ne doon bounce back na doon bounce back ëllëg wante ñoom ñoo feel seen rôle so so foog nga ne Kaba am na am na loo xam ne moo ko war a comme fu mu nekk noonu noonu ndax am na loo xam ne war na faa toog continuer na nit ñi duñ ko mën a blame. nit ki suñ ko bañee ak suñ ko buggee buggee sax. mu fa léegi nii mu ngi dugal si si ku dem euh, fifth iyam e bi. ba mhm. pare na fa toog. Mhm. am na foo years mhm. dafa des ndax. yaramam mi may na ko ak wér-wér yaram mi mhm. wante dafa toog mhm. lu yaaga parce que ne dafa konka mhm. euh, this west coast region bi dafa leen konka ñëpp gis naa loolu ko support so people there ah, gis nga ne sa Bakary Jammeh moom moo nekkoon head of delegation bi si Togo ah, dem biir Togo foofu so da ngaa gis su <laughs> <laughs> xamee ñoo ñëpp ñu ngay dance to the ah, na Malick tam mun naa ñëw mu ne non moom sa bëggatul si affaire football so Euh, Kaba wax na ne ne baax na. am na yar am na nu nga ne mooy communiqué wante ne. people ñu ko show round. Mm-hmm. comme ni ñu dama doon dal di wax léegi nga mm-hmm. dal di xool di second vice président third vice président bi. Mm-hmm. ak secretary bi waaw so ñooñu ñëpp. amul kenn ku nga xam ne ne. Ah, football waaye sax après ma ko bëgg a wax ni mooy ñu ne. dëkk yu ne dalee tombale comme ni sama waxoon na ko fi woon muy. Uh, Cape Verde Islands. Uh-huh. Gabon. Uh-huh. Uh, Guinée Bissau Guinée Bissau. Uh-huh. su ñooñu su suñ leen dee dal di wax ne ne. dañ ko fi def eggal fi ñu dañoo saaga gaay yi. parce que ne dañ si dal di invest seen xaalis. so dikka bi yëpp moo ñëw boole leen. seen gouvernement bi tam dugal si xaalis. ñu isi ay coach yu baax soo. dapaas bi nga mm-hmm. a ema mm-hmm. mm-hmm. gaay que den si dapaas soo ñu nag dapaasum si ok Sabaly Sabaly nañ nañ xool si ñëw Sabaly si team bi fu mu nii nañ xool si team bi um, national team bi uh, there are of people yoo xam ne ñu ngi complain ne fu mu nii um, comme select duñ dee xool ni ñi nga xam ne ñu si rural area liggéey beeg yooyu noonu normally focus bi daf dee nekk within Banjul comme baag yooyu noonu noo ko gisee. den sa question bi dafa yomba trop. waaw waaw ansa ko rek am nga gis nga Gambia doo mun a isi fii rural urban dichotomy. Mm-hmm. because man man waa koo gi la. dabax mm-hmm. waa koo gi la. Mm-hmm. ñuy play fii. the best players ñu day jógee rural area bi fii lañ nekk. talent bi yëpp a ngi fii. man ma foog ne li ma wax sax sélection bi lu tax ñu bàyyi. sabali maa ngi ñëw foofu noonu non sabali sabali maa ñu bàyyi OJ. sabali you cannot be a panelist mënuloo nekk panelist. ma ne ma foog ne sa question bi daal waaw <laughs> question bi waaw léegi xarama <laughs> daaneel sa question bi dafa ndoxee loolu loolu it's not material talent bi yëpp a si urban area soo bëggee sa mbokki kaw kaw ñu play nañ ñëw si sa opinion si coach uh, ba ma ñëw <laughs> dama la sama ba ma ñëw bul ma bul ma joxe lii bon na ngay jompe xarama ñëw bi ñu bëri ñu ngi complain ne coach bi bu mu ñëwee coach coach bi dafa ñëw mu fekk fi team boo xam ne good team la mu drop yenn players um, kenn ku mel ni ba ma jël Steve Tarawale ah, dafa drop um, Steve Tarawale because mu ne munu koo jël because of um, Steve nekkul dis coach ci lu mu wax and then mu wax ci ligue bu mu jógee tamit and then mu uh, mu drop ñeneen yi mooy uh, Koli and then uh, nga am Baro Modou Baro and then Hamza Bari and then ñooñu dañ am seen seen seen reason ah, ba ma ñëw suñu waa Lamine bi nag non xaaral ma Omar Koli rek Koli war Koli ah, war Koli Omar Koli of course waaw so ñooñu seen reason suñu joxee moo nekk ne seen ñeneen yi ñu ne seen jabar yi si si si situations yu gars yi nu ah, mënuñu leen nii bàyyi so yow na nga jàngatee loolu ndax da nga gis ne fu mu nekk nii non arme booy sa question bi daf dee gudd waaw gaawal bi coach yi la am bi sax lii lii fat-fat lañ def rek bugg a ñoom baamal soo cegee sa coach bi ban time lañ ko isi just before the election jox ko a contract bi nga xam ne less than nine months loolu mooy the biggest demonstration that is GFF they are not serious they are not committed they are not patriotic enough They are not interested in youth development in this country. Because if they were, they would have acted better. I would rather nga jël coach Omar Cissé jox ko incentive soo xamee ne amuloo enough xaalis. pour isi a foreign coach. nga support ko at least nañ am that moral boost sa ñu def dara. soo paree nga def lu serious. so coach bi is a big error. yëfi boys yi. loolu moo gën a garaaw because dégg nañu there is internal politics in the in the technical bench of GFF which is very unfortunate mm-hmm. suñ toogee fii ñuy blame suñ politician yi ñu ñoo fi gën a yées ñoo fi mm-hmm. gën a the uh-huh. technicians ñu uh-huh. nekk behind there this raba uh, raba coach bii nii gars yi they have problems with people like Steve mm-hmm. ñoo dem ñu ñu insight ko mu bañ du not just players dafa bañ ne some of the technical staff coach fii benn particular coach dafa wax ne du liggéey ak kooku ki nga xam ne mosuloo koo gis mosuloo koo dégg nga ñëw rek am ne dafa am ñu nekk biir GFF technical side bi ñu ñëw suuf suxal seen raba raba coach bii nii then boys yi def mën a xari torop because boys yi lu bari lañ sacrifice especially maa si OJ gi maa si maa si Steve gi ku nekk da nga am family even tubaab mm-hmm. issue mm-hmm. doo jël football nag def ko above your family mm-hmm. subsequent games di were available waaye fàtte loolu sax Steve was available lu tax jëluñ ko so dañ am agenda pour tegee boy si boor man li ma wax mooy te binda naa sax for naa kóot na si Bob Marley sa you know si ride nati ride bi ne Steve ne focusal on sa game because Gambia si xam nga dañ na sax si football waaye xam nga si nga xam ne ay nañ si añaan ak discourage nit nga am a young guy's, uh, you know, guy's moral pour nga exclude ko mhm. from his national team and he needs caps mhm. lii lañ fi defoon suñ goalkeeper bi Baba Doumbouya mhm. practically dimbale Gambia ñu qualify for the Algeria Cup of Nations ñu génnee ko si squad bi. Mhm. ba tuuti mu isil ko problème. Mhm. lii leen di def di destroy nit. Mhm. so man boys yooyu lu ma leen a wax maintain your confidence. nga focus on your career. because football yi Gambia jëmut fenn. unless nit ñi te bu ba wax na ne team Malick xal nañoo na sax tuuti which is true. I mean I important. no as I'm very <laughs> te xam naa ne doo fi isiwaat football yaa ngi si yëfi politique rek lii nañ ko wax mu leer you understand doo war a jóg nga ne Kaba Bajo ngay ñëw ngay ñëw jonganteel ngay ñëw last two months no no it was really team Malick nag definitely dañ xala bàyyi seen loxo tuuti waaye du ñoom rek mhm. ndaw yi nekk si football bi mhm. nañ jóg even these youth leaders yi nga xam ne they are not interested in football ñu ngi si workshops yi mhm. nañ xam ne mënuñoo def youth development in this country without developing our sport football ma delluwaat si nguur gi pour wax fii ne we are in line with FIFA who is FIFA FIFA is one of the most corrupt institutions in the whole world just like any other international organization corruption bi foofu la dee dooree ñu link ko to jëm kanam na président Barrow jël des decisive step ñu scrap GFF ñu start from suñ ñu baanee loolu jaamalaat dinañ save xaalis ñu mun a am jom ñu ñu defaraat suñ football Sabally so léegi fu mu nii lan nga foog mooy nekk solution bi da nga foog ne scrap GFF ñu start afresh GFF minute ban GFF si mhm. FIFA ban suñu FIFA banee ñu leen alhamdulillah ñu seen leen thank you letter mhm. ñu use that opportunity mhm. pour reorganize football ñu strengthen all the institutions a coach bi moom dañ ko war a fire that very day bu ñu bu ñu that goal foofu lañ ko war a fire warutoon a xaar game game bi <laughs> daba yow <laughs> so daba yow ah. sa opinion si noo gisee team bi non man xam man moom ah. coach bi moom man dama ko wax. and I mm. think soo demee Facebook I mm. wrote about this. Mm. ma ne soo xoolee CV coach bi team yi ñu jaar. bilaay automatically daf laa wax ne kii third division team in Europe sax nii duñ ko. Mm-hmm. understand nga ba pare I was very shocked. Mm-hmm. after the game. Mm-hmm. yow yaa nekk leader bi. because coach fu jaar nga assume responsibility. because su nekkee ne sa boys yi yow da nga believe ne like they were not committed. man dama ko demal leader bu nekka it becomes your responsibility pour nga motivate inspire and get your team to buy into your vision soo mënutee loolu then you have failed your role as a leader and you are not capable to lead anymore so yow doo mën a lose game nga ñëw di blame players man lu ma doon expect moo nekk di list because coach bi ma wax la leena dafa play 4 3 3 waaye coach bi si boppam nekku doon di bàyyi xelam ne two flank players dañ dee jegee striker bi understand nga so da ngaa ca ba togga tamit nekkuñu woon def togga they have experience mm-hmm. so ba pare koo ji togga bi ku nekk xam na ne kooku xam na am na ñaata years on African football Claude Loroy everybody knows he has coached Cameroon mm-hmm. all these teams they are Congo and everywhere so mm-hmm. he knows African football to the core those two flank players dañ dee tëju jege striker bi too much so da ngaa capane yow su gars yi Gambia suñoo build counter attack suñu saanee ball bi si flank si mhm. before player bi di jógee centre of the field ah, flank player bi di jógee centre of the field pour daw dem jëli dafa fekk sona na mhm. these players ñoom ñoo la ëpp doole dañ dee ñëw téye ball bi tab rek dóor ko fële mu dem so ba pare mhm. yaa ngi am ñaar ñii togolis yi dee coach bi he understands ne ñoom lu gars yi need mooy a And the system that he was playing, man, for one another, didn't realize lot since from the first half. Mm -hmm. In their own quarter, then they try ball, we tell again fofu no. While soon you get the Gambian side, then they take ball, we deliberately slow down the of the game. Pour allow certain players, you kill time. Mm -hmm. Lolo mungi slow Gambians, but for Gambian players, especially in the second half. amuñ woon that audience yi comme mel ni ñoom ñoo nit game bi especially I ba pare coach bi change sum def si nine minutes of the game because changes yooyu noonu daf ko fail because man that Ablaye Jallow mooy Racky Meles bi I was thinking ne daf ko isi si early second half bi because yow da nga soxla win by force so play nga first half nga draw what you needed was da nga need striker boo xam ne nii because kooku you can just look at him nga gis Jato Cissé because Gambia depuis time yi Jato ñun amuñ play boo xam ne daf day a téye ball mu bit two three four players dem and with that boy yaa ngi gis loolu si moom yee dégg la di nga wax ne like amul doole mm-hmm. amagut that much experience waaye early in the second half man dama foogoon bi gars yi di jógee si dressing room bi sax daf ko isi mu support Barrow because Barrow tamit mm-hmm. soo xoolee moom kenn la gars yi xam nañ ne he a fast player su tee ball he wants to score mm-hmm. ah, Cissé tamit wants to score waaye ca ba nga Barrow su tee ball gars yi ñoo ko ëpp doole suñ ko two players piné soo gisee loolu da ngaa ut player boo xam ne ni ku am doole la because man foogoo naa ne dina indi Isip Badamosi. Mhm. he's a tall lanky striker boo xam ne am na doole. Mhm. wéeroom si any defender. Mhm. dafa am lu bari lu ma wàññi si yow. so man dem na ñëw na yëpp man lu saabali wax loolu laa gom man ever since dama ko mos a gom man I've said this gars yi GFF yi maybe time boobu noonu Tim Malik. I told them this. lu jaalo wax loolu laa leen wax. parce que benn man approche nañ ma and I was part naa a bokk as part of the nekk man lu ma leen mooy. you cannot go to a war ngay jéem a am looy seet wala am looy bañ a wax non because these people dañ corrupt loolu Gambia fu mu jaar ñu nangu loolu gis nga ne Gambien si nañ bàyyi affaire yi masla because GFF 42 million dollars la gars yi spend at that goal project loolu nekkul sax dañ ko build from scratch it's just renovation wax ma yow 42 million dollars if they give it to you ñu la nga dem build hotel doo build hotel ah non nañu wax dëgg rek soo léegi boobu noonu nekkal si football FIFA and I've said it this fo waxoon ko fi time election bi man mënumaa depend on FIFA because FIFA corruption bu fa happen ba FBI bi di take over seen office mhm. loolu yàggul ñëpp gis nañ ko mhm. Sidi Kinte bi moo nekk fii ah, JFF président fii la ko Bilhamin yónnee Baha fii nii mu wax ne freinan la ko ko mais it doesn't make sense it's mhm. corruption it's bribery so façon yooyu noonu yëpp ñu ko gis si Gambian football yaa ngi sacrifice ndoo yoo nga xam comme yow ni nga jëlee jànga def ko mu nekk sa métier ba tey ngay mën a toog si office ngay liggéey da nga gis ndóo boo xam ne ni tey dafa bàyyi jànga because moom football la gom soo mënuloo am ñoo xam ne dañ toog at the helm of football a administer football ñu nekk di toppa ñoom seen interest because man coach boobu bi ko gars yi doon jël di ko wax teams I said this make naa post about that ma ne campaign strategy la but coach bi si boom soo ko xoolee it doesn't make sense mu ngi nii Aliou moo fa nekk du Sénégal is he not having am results Cissé mu nekk ki ngay joxaay noonu under 23 bi xam nga kooku dafa prove boppam not only in Gambia outside Gambia parce que man kooku moo ma gënal téeméer yoon coach bii nii gars yi I would prefer ma fay kooku noonu boy hundred fifty thousand dollars per month yow daba yow bi ah, a wax moo nekk ne yow you're not okay with moo nekk dëgg bi understand nga lu fa nekk si biir lu bari loo xam ne dañ ko war a setal dafa bari and I was very much disappointed with the minister of sports mu ñëwee gars and suddenly mu ñëw yow ñu ministre nga. Mhm. fekk nga football stakeholders ñu am problème. Mhm. boy yow yow non nekkul affaire interfere dafa interfere sax because interfere bi mooy dafa support team Kaba because mhm. ñooñu dañ fa dem ñoo xam lan la gaay wax ak yan lan la lan la gaay seexa waaye di reality moo nekk like dafa doon am opportunity mu oote a national stakeholders meeting mu invite both sides listen to all of them moom mag la am na experience ku nekk su waxee dina def analysis mu xool nga xool di issue of comme saa lu mu doon wax these people they know the game they are playing because xam nañ ne suñ toppee loi bi dëgga dañoo dem down because corruption allegation suñu wax gars yi dafa clair loolu dafa leer because gold project break is one deliberately refusing to pay that GRA stuff and I was very disappointed bu that how much deputy commissioner of GRA doon man I am a business guy man all in our container fii mu ñëw forty feet container and I'm gonna say this to today because that I was very man dama fay suma Clarin agent I gave him a check because kaay ma container bi di ñëw fi fekk maa ngi America mhm. mu call ma ma ne ko demal nga wax ak gars yi ñu may ma two months mhm. su ma ñëwee I will give you a check mu ñëw ma jox ko check moom mu dem mu def arrangement ak gars yi I don't know what kind of arrangement they did mhm. the guy was late to go and make the payment they came with keys pour lock down suma office

close to a million dollars for ñaata years almost close to going to one year nga ma ne kooku committed crime loolu moo laa wan ne kii lu mu wax moo nekk loolu laay yaa ñu ngee jël seen mbokka mbokka naay si mm-hmm. noonu and loolu lañ war a génnee si système bi ñu aate lu nga xam ne moo nekk dëgga for everybody bu baax noo gisee team bi um, players yi problème bi fan la coach bi la wala JFF problème bi fan la. ah foog naa coach yi Togo yi daf doon xam nga daf doon coach. ban coach. Ah, coach yi Togo bi waaw ah, ah, ok ok man uh, <laughs> uh, nekk woon ci. media section nañu woon démocratie man. Mhm. démocratie laa <laughs> ok ñoo ñoo denoo. Uh, ah, yow tam démocratie. kooji ah, uh, togo yi mu doon gaaruwaare raba-raba coach bi. Mhm. mu ne ko ne digga digga. Mhm. boy si am nañ technique am nañ talent bi wante xamutoon lu mu doon def. waaw bi xamut doon def. waaw kooji togo ba koy gaaruwaale. soo xamul ne ko ne def. so ba pare another aspect bu nga xam ne ñàkkoon nañ ko mooy de. video analyst. Mhm. moom coach bi dégluwaat naa press conference bi through ñi nga xam ne ñooy Q City. Mhm. mu ne after la moo toog xool video bi wante foogoon naa ne. Mhm. video analyst waroon na ko def dal di gannaaw maaji Togo bi awee maaj bi. because waxoon naa gars yi mooy ñu ne Togo su noo ñëw si gan Banjul. with chartered flight. ñoom dañoo am that confidence. ak that mentality ñun léegi. we can take on Gambia. so Gambia mun doon play a pressure di players. Euh, pression bu nga xam ne ne. Uh-huh. dañu war a score. Uh-huh. ba pare dañu daal di war a win. Uh-huh. Euh, techniciens yu yu yu yu Sabaly wax. ñu si beñ bi rek. mooy ñu on a on a waaw ñu ne ko Tom ku nekk mu ngi seera mhm. so that place mhm. the only thing loo def coach bi ñu la doon def rek mhm. xam nga at dividend so foofu mënoon naa oo Lamine Diallo mënoon naa oo Assane Cissé jox ko directives ne looy dawee nii baaxut parce que ñoom ñaar yëpp ñu doon play false flank bi so foofu yow as a coach si toj laay mi am nga lifin because dañ dee am break wax la ne nooy dawee nii baaxut because lu mu wax gars yi mooy ne ñëw leen ngeen jël bool bi si digg fil bi su ko gaa jëlee bool bi digg fil bi ñu yóbbu ko kan moo nekk si si si lifin bi kenn kenn fa nekk soo lu sabal yi wax koo ji raba-raba la soo xaw ma nag na daf ko wax pour daal di empower parce que Omar Cissé tam waa Lamine la soo tactical daal tactical daal uh, coach Bidal tactically he mm. was so poor. Mm -hmm. Tactically he was so poor. So how about how about previous games I mean? Wala mom raba raba la. Wala previous games I mean were Sabs may ñëw. Sabs da nga am ajana ma ñëw. Coach bi ñaata la ñëw. Kii lim la bi baaxut. ba ma ñëw. Coach bi taat pati dañ ko essayé digga bi. Mm-hmm. Coach bi mm-hmm. ko essayé lu nga xam ne xam nga. Uh, li ko jëndee bëgg a mbaamal nekk fii la if Gambia nice. could mm. be third party la so ñu ñëw. Mm-hmm. def a very big press conference comme ni ko Sabally waxee la just mm-hmm. days before election. Mm-hmm. ñu isi ko so xawma lan is because of his color. xawma lan coach bi man déglu naa ko first interview am. BBC loolu June laa ko. so coach bi man déglu naa ñaari interview before Gambia di ko wante ne. fédération bi ñu la wax ne third party la comme ni Sabally moo xam. Sabally xam ni America la gisi ko rek. so tactically he was very very poor du ma dee. nga ne coach nag wante xam nga place yu mu so the likes of nañ ñëw fii di the likes of comme nañ jël exemple of Steve because Steve moom moom dafa jël décision bi ne daf ko just daf ko just aju boole ko si team bi noo gisee loolu ndax dafa am ñu nekk si si ronam wala noo gisee loolu noo ko jàngatee. non Anso amul ñu nekk. non bàyyi ma ñëw bàyyi ma ñëw opinion. Matar Matar soo soo li amul laa la soo demee soo demee si studio bi ma mm-hmm. ñu bari ñu doon saaga so affaire Steve man maa easy mhm. so it's not ne mhm. ne dama am close relationship at Steve wala suma xarit la mhm. wante lu mo don wax gay mo ñene if ne if ne jëlee Steve internal problem mu xew si team bi lolu taale ngeen solve ko diggante players communication so man lolu la wax gars so I was not after ne waro na no pick Steve wala warum ko pick wante problem nga xam may communication bi comme ni ko daba waxee rek mo moo ka the head of leadership bi after the game. wax na ne jaamaano Ali Sow ak Baramuusi soxloon. joxut ko gars yi wante ba léegi tam. yaa ngi si benn bee gars yi. because xam nga Europe dafa advance. tactically. mun na la wax Ali Sow at lii Ali is not a bad player. Ali Sow before Assane Cissé. Gambie Ali Sow dañu doon daanaka dafa gaañu woon wante Ali is a very good player. Baramuusi so da gis ne daal nu dee waxee at the tone nu dee waxee. koñ bi yaakaar ma so bu Steve man réew bi dañ dee am news. Mhm. ñu koy nëpp nëpplu. Mhm. waaw so man ay call. Mhm. man ay call man ay call Matar Mbodj. man ay call his name ne Matar Mawli so jëlal si yëpp raba-raba foofu dem ko press conference. ko xam nga because moo nee déglu man. because I come from experience so yow sa xaaral xaaral xaaral because man dama confuse xaw ma sax yow sa gis-gis ñoom fa lañ wér ne waaye Steve mënut a join team bi. comme ni ko Sabaly waxee rek. Eh, bu ma waxee brother Steve lu ma mu ne ma ne. at the end of the day sax dañ ko wax ne ne. xam nga channel fa sori du mun a tukki wante. affaire yi Matar la so man wax naa ne gars yi léegi. bu gars yi lu ma wax dañ ko war a jël wala na gars yi waxtaanaa place. Mhm. because ñoom si ko yëpp. Mhm. retaillé wu. Mhm. ba léegi. so ñun ñëpp amoon nañ place si réew bi ñoom Ousse Diallo wante ne. nun dee communiqué tey gars so loolu moo tax fédération bi amul kenn ku nga xam ne ne. Moustapha play football sax. xam nga so diaspora bi. ñoom Jato Cissé. ñoom Ilson ko most of these people ñu ngi ñu ngi it am nañ seen lines wante ne su leen isi woon. Mhm. exemple la nga jëloon Sefosoli. Mhm. def ko head of delegation to lu bëri la mu fa doon mhm. si guddi na waxaa gaay. waaw wan ko euh, lu mu nekk wayu wayu wayu. lu mu bokk bi. te ànd gaay. su da gis ne de wane soo jëlee Bakary. jógee nekk alxaaji. war a bi Togo kooku du mën a wax gaay football <laughs> ma eh, ah, dañoo def nii um, ñu def nii rek ñu jël ki nga xam ne mooy uh, coach Pasamba Diaw uh, coach Pasamba moom like na football trop dañ lay gis muy wax lu bëri ci football uh, lépp loo xam ne rek dafa demal réew rek coach Pasamba daf ko daf ko daf ko foos yiteel coach Pasamba jaw na mu nañ la am coach coach coach ñu ngi laa dalal ci gis-gisi tey bi suñu waxtaan tey mu ngi demee ko ci li nga xam ne mooy football yi Gambia of course ah, dañ bugga rek nga wax ñu si lu gàttal nan nga gisee suñ game bi last game bi rek. Well, it was sad. It was not an inspiring game. Mm -hmm. And I think uh, I agree with uh, the other panelists. Mm-hmm. I think they, uh, they could have done much better mm-hmm. than they did. Mm-hmm. Uh, not only that game, Sam, and I even believe in the swing match Algeria. the coach was really playing not to lose. Mm-hmm. And when you play like that, you're playing to win. Mm-hmm. Because I think he's, he was more interested in just not uh, winning, not losing a game, mm-hmm. more than winning a game. Mm-hmm. And uh, it is it is very sad. Mm-hmm. uh, our football is not progressing as it's supposed to, mm-hmm. because I believe the uh, personal agendas are really uh, coming in the way of uh, the national interest. How about coach me? <laughs> no, say coach me, coach. Well, uh, <laughs> I don't know the coach very well, so Munuma to criticize. Why I was very surprised mm-hmm. uh, when this coach was in the Gambia for less than a month. Mm-hmm. Then a player was dropped mm-hmm. in uh, uh, Steve Tarawale. Mm-hmm. His response, his rhetoric to why Steve was dropped, mm-hmm. to me was very disappointing mm-hmm. because he could have easily said, "Listen, He's a national team. We hmm. have too many players that we select. Uh, we can select him another time, but to just pretty much in a very nice way. Wow. You know, disparage this guy hmm. talking mm-hmm. about league more player and all that thing. To me, mm-hmm. that was really counterproductive, mm-hmm. and it really speaks a lot to what the objective hmm. is. Are we uh, running a national team or are we running? a, a kabudu. Mm -hmm. Anybody who has a personal problem with somebody can just bring it on. So to me, I was not impressed by that, and really that was a turn off. Mm -hmm. Uh, coach, my on, there was a time I was going to interview with Sefo Soli um, regarding a game, how exactly, but not long ago. Um, uh, na um, yow da nga jàpp ne maasi ñum Sefo Soli and Jatta uh, dañ a join li nga xam ne mooy ida GFF wala team bi because gis ne GFF still lu gars def uh, nit ñi kontaan ci tamit team tamit tamit nekkuñ di def efforts pour make soon ne rek fans yi football fans yi ñu ñu kontaan si seen play games ak yooyu noonu yeah involved in Gambian football. Nobody they may not know <laughs> this because of this politics. Mm-hmm. A lot. You know, the Gambia Coaches uh, Association for Funoni in the Gambia. We, we started that mm-hmm. and all that. Mm-hmm. But I also believe ne, the people who were veterans, mhm. played for the national team, mhm. did a lot. Mhm. There is tremendous experience that they have that it would not help to get them involved in the in the in the play. Whether it's Nyom Sefo Soli, whether it's Nyom Asis Kor Nyang Mundau or Asis Kor Momak or, oh, or oh, ñoom Wan Njai or ñoom or, or ñoom Pa Fofana and a host of other players ñoom Sonko and all these guys hmm. who are abroad who have their licenses who are interested in the game like uh, what the uh, gentleman said hmm. it would not have hurt to just invite uh, it's called, Momak hmm. or Sefo Soy and say you know we want you to be the head of delegation of the team senior travel or Lamin Oins, or Laos yes or Biri uh-huh. or some of these people, they would go and they would be looked on to because you look up to those people and they, wow, uh-huh. uh-huh. how did it go for you guys? Uh-huh. How hard was it? How did you make, uh, make it through? So when you do that, you are encouraging everybody to participate. Why wouldn't akimuko and act like the people in chibuga because this is supposed to be a national effort. Mm-hmm. It's not supposed to be something that is uh, seen as kii dafa bëgg a jël We do bi du affaire why did the Gambia Federation started in 1962. Mm -hmm. 46 years later, mm -hmm. or 56 years later, mm -hmm. what have we gained from our football? Mm-hmm. And this period that we are in today, uh, Ansu, mm-hmm. there is a lot more money in Gambian football today than ever was. But I mm-hmm. remember <laughs> uh, in the 80s, 83 or so, when we used to go to play third division, uh, second division box stadium ñun ñëpp dañ naan teg tranche tranche pour mën a red cash or uh-huh. jox suñ players si pass and all that stuff uh-huh. but you have a lot of money that's coming uh-huh. teams are selling players abroad we have more players playing abroad from Nekani. what is our problem and I think we need to have a an uh, a a holistic approach to our problem coach daa xay fii maybe nice, but I believe that there is a lot that we can do. Coach, when you look at um, footballers, dang they gis ne dañ dee lack um, so so leen xoolee ci they bëri comparing with other countries dang they gis ne gars dañ dee that motiv like motivation bu gaay soxla from um, dëkk bi GFF more uh, especially government Well, you you are right because so hunger. the coach. Mm -hmm. is supposed to be a motivator. Mother, you can just call them a manager. Because at this point, there is nothing that the national team coach can teach anybody. Mm -hmm. So their job is to motivate the players, mm -hmm. to manage their egos, so that they will be able to maximize their talent and, and, and their performances. But uh, what is happening now, if you control a team, everybody is on an eggshell, uh, you are going about talking about the denigrate the potential players, mm -hmm. the leagues you play, it does uh, they, it, it, does it affects the people. I think that the Gambian people have the support, the Gambian players. Mm. Because I've seen the stadium full back. They didn't come there to see Togo, they came there to support the Gambia. Mm. They were there in their numbers, wearing Gambian flags and all that stuff. But if the player is not inspiring, of course, you're not going to get what you want. So, man, I believe ne, a lot more can be done and should be done to be able to motivate our players. But we also have to have a long-term solution to our problem so that maybe eventually we'll have uh, the results that that that is definitely uh, desired. Coach, I will get back to you. Um, yow bul bul dem maa ngi ñëwaat back to you. Um, Sabally, um, ñu ngi gis of course um, attitude yi fans yi. Um, I mean last game bi immediately after game bi ñu ngi gis fans yaa ngi doon lakapono ñaa ngi doon jam players yi and all of that na nga gisee loolu. loolu ànduma si mhm. uh, I think ne loolu man man def ma jaaxal sax mhm. Mhm. so su dee dañoo protest si kan la ñoo protest man man boobu moom boobu foog na I don't understand I think ne uh, uh, fans yi maa ngi leen a ñaan. Mm-hmm. Uh, football is a very emotional mm-hmm. game man sax xam naa léegi si biir fiil bi. Mm-hmm. naa def war a wax yoo xam ne xëj na outside the tension du ma ko def waaye waaye nañ bàyyi yooyu. you you went to a football game you were disappointed. I don't know sax why they were disappointed parce que man beetuma moo tax dew ma fax. man du ma dee miss international game waaye last two games yi Algeria xam naa ne du baax. so waaye whatever the outcome because if you are a real fan. Mhm. sa team bi su lose sa you cheer them up. Mhm. soo mënutee def loolu. boo mhm. créer fitna si dëkk bi loolu moom ànduma si. maa ngi leen a yu bàyyi loolu. su dee serious nañ si lifi football. nañ toppa GFF bi ñu wécci leen. ba pare ñu make sure anytime there is an election. ñoom ñëpp ñu jóg sawar si. waaye lu sa yuut si luñ sawaree si mayoral election bi sa moo ëpp luñ sawaree si GFF and I believe GFF has more potential impact on their development Kababajo practically went on opposed mhm. because the opposition they were not serious. Mhm. Mhm. so yuut si daal I mean xam naa ne ñu si démocratie. xam nañ ne waa ji fi so suñ yaram yaa ngi xala tànga waaye daal nañ bàyyi yooyu daal démocratie tam. mooy ne suñ ootee pour nga taana nga dem taana. Mm. waaye ñu ne nga taana yooyu yaa ngi naan ataaya. Mm-hmm. ki nga taana mu def lu bon yow nga ñëw nga ne da ngaa loolu duñ ko fi nangu de. Mm-hmm. please nañ toppal loi bi nag. Mm-hmm. definitely bon boobu moom. ay mhm. donc si kan lañ doon protesté ah Rama Laaja yaa ngi bokk si gars yi. non non non Sabally next um, uh, léegi Sabally nan lañ mën a def um, quickly pour ñu mën a motivate players yi pour ñu mën a make sure ñu restructure Ah, li nga xam ne mooy ida GFF ak tamit tamit li nga xam ne mooy. Um, man bi euh, seen team beeg. nguur gi lay ñaan ministre of youth and sport yëpp. Euh, du ministre bi rek ak ku fa teg ministre bi. Mm-hmm. his excellency président Ababacar Barrow. Mm-hmm. moom lay ñaan. because mm-hmm. lii is a very serious matter. nu moo jëlee national development plan bi. ñaan naa ko na jëlee football noonu. because football rek rek rek can have such an impact that su wookee national development plan bi dina wook su wookutee seetal Ablaye Wade lu mu def ak Boré si Sénégal mhm. you know loo euh, doxal sa réew fu mu nekka nii mhm. te te euh, euh, supportuloo sports mu strong mhm. gis na frustration yi dafa bari si dëkk bi suñu amoon seetal di Algeria game for instance for once entire social media kenn waxut yëfi tribalism kenn waxut yëfi politique everybody became Gambian I think that's an example so your excellency président Barrow xaw ma na dem ñu dee seetaan or not <laughs> waaye su dee yaa ñoo seetaan maa laa ñaan nga seetaat daal sa taxawaay bi sa position bi nga jël on GFF mhm. because man foog naa ne danga ko yombal gaay torop mhm. so li ñu war a def mooy I don't expect even though man suma position mooy mhm. nañ ah, nañ scrap GFF FIFA baan ñu ñu startaat suñ mënutee def loolu léegi na ut committee xam naa ne is very good in setting up committees ñu oo GFF ñu jox leen ultimatum jox leen ay timelines performance benchmarks li léegi lii comme que dañ leen elect yéen a ngi fi four years bëgguñ leen a daaxa cause du ma wax ne mënuñ leen a daaxa mun nañ koo def loi bi may nañu ko bëgguñ leen a daaxa léegi def leen di léegi léegi lii si ab sangam ak an ak sangam mm-hmm. ñu gis yekkute si football mm-hmm. two years maximum suñ ko defutee ñu daaxa leen ñu proscribe leen pare ñu ban leen completely mm-hmm. from any any sport not just football because dañ bëgg a réew mi te réew mi warut a because of few nit ok sa gis-gis si attitude yi and then tamit um, na nga la mooy nekk solution pour rek. Ah, football moom ku ku sports in general especially football xam nga ne dafa ànd ak hooliganism. Mm, ah? mm. nekkul lu civilized and that's why you know fair play and that's all. Mm. you have always. few people among the miss ñoo xam ne by force rek ñu. jaxase non du few people dafa bi affaire si bul non bul ko yombalal paako yi paako yi a waaw leen dëgg. dama dama wax dama boy si démocratie <laughs> parce que every match am always there ah. Mm, mm. man naa ne match bi after the game dina am tension. Mm-hmm. man expect ma woon sax. Mm-hmm. outside la mu nekk man dama foogoon ne si biir stadium. waaw man I nga lu tax. Mm-hmm. <laughs> di mhm. foog game ministère am na yenn paako bi ñu doon si. Mhm. non saa ba dem waaye la <laughs> <laughs> nag. nga man tay pour <laughs> eh. la kono. Mhm. bari ni bosol man play bi mais jambe la nga xam ma leen doon kaam kaam sax. waaye you can understand like is the frustration because ñeneen ñi su la eh. waxee fan la gaay doxee ñëw pour si si maaj bi. ñeneen ñi dañ sacrifice seen last fifty dollars wala hundred dollars ñëw pour dugga. ok man. bañu ma luus. Mhm. waaye xam nga su nekkee da nga luus te da nga joxe respectable performance ku ko gis dina xam ne dëgg dëgg da nga play. waaye to tell you the truth. Mhm. Uh, football is about peace is about love. Mhm. na gaa yi gën a dëgër si loolu ñu jàpp si loolu mu gën a dëgër daal I think yeneen yi nañ ko bàyyi fi xeer yoon. Ah, ak solution si solution si. non solution si man lu saabali wax rek man loolu laa gëm man I believe ne. they should scrap this current ñu ñu ñu look for an alternative. Ah, problème bi moo nekk like youth si duñ mun mun a vote because gis nga GFF ñu ko doon ñu doon defar seen luwaay they made it for themselves and they made it very difficult pour nga vote lañ aw parce que dëgg bu fa nekk lu nit yi dee bañ a laal last time wax naa ko fii during the GFF election ma ne club si ñoo dee dem vote nañ xool ñu amee club si GFF gis nga subvention buy ñëw nii dafa am particular clubs yoo xam ne GFF dañ leen dee jox spécial xaalis pour ñoom su suñ demee pour vote they will vote in this current JFF bi ko xam nga lu tax ñooñu ñu fa nekk pour ñoom seen interest but they are not there for the interest of football and that's the kind of nasty politics bu nekk in football saay wax na ko like Tim Malik man wax naa leen ko bu baax sax ma ne leen da ngeen xalaat sof da ngeen xalaat ragal foog naa kii moo si doon xalaat dëgëral tuuti Issa mhm. waaye Issa Ekloun could not have done it mhm. because reality bi moo nekk like if you have to incriminate them yow nekkul ne yaa ko yaa ko dem fabricate waxuma nga dem fabricate evidences comme for example with regards to the gold project boobu man when I made that post you can see even the reactions of Gambians because kama la wax de parce que su ma waxee toilette sax ñu bari dañoo foog ne xam ne gold seed la am kama pax la kama jonkoon understand nga should not cost even five thousand dollars nga ne da nga fa spend 1.5 million dollars. Mhm. it doesn't make sense. Mhm. loolu was a strong evidence. Mhm. bu nga xam ne nii gars yi mënoon nañu koo use but the reality moo nekk ne. some of these club owners dañ lekk xaalis already because ñoom boppa si corruption boobu noonu nekk di def GFF dañ si bokka so ñooñu no matter what lu team Malick wax. gars yi duñu doon déglu. because already su ma la joxee nga lekka yoo xam nga ne man su ma dem down am going down li ma wax mooy. the of constitution GFF. parce que mënuloo wax ne loo xam ne c'est national thing. nga am few people ñoo xam ne ñooy toog ñuy decide. kan mooy nekk ba pare nga xool ah, <laughs> seen élection. Hmm. seen appeal committee bi la ama. côté yooyu nga xam ne. reason su gars yi doon joxe sax dafa mégu sens ba pare maa ngi gis recently ñu ne dañ baan ñëpp team Malick ba mu des Malick. team Malick ñoom Ensa ñoom Star Diallo ñoom ñoom Star Ndiaye ñooñu lu gars yi wax. Malik moo nekk head bi so sooy ban you should start it from Malik coming ah, down. waaw si si si GFM buuba buuba buuba buuba buuba. moom la expert bi dañoo expert Malik. bàyyi ma ñëw bàyyi ma ñëw buuba. ah Malik GFM la buuba quickly attitude fans yi ak tamit lan nga foog ne because ñu ngi close ah, lan nga foog ne mooy um, solution to this mooy problème bi nga xam ne ñu ngi ko face all the time. waaw ah, organisation committee bu nga xam ne mooy event management bi bu nga xam ne Willie Abraham Langton Montamba jàpp na ko. Uh-huh. football dafa solo lu bari. Uh-huh. like before the game sax. man amoon dat dat yëg-yëg comme yëg-yëg bi nga xam ne ne muy woon Madagascar mhm. fu nga xam ne taximaan yi mhm. jaaka yi sa leen dee ñaan mhm. so loolu amutoon fen mu ngi dee loolu loolu amutoon fen so da ngaa gis ne nag loolu moo tax den soxla TV si den soxla radio station si den soxla newspaper si pour ñuy éduquer fans si so loolu su amutee hooliganisme parce que man football fan la et fort minute bu ko duggee biir togo man i was blackout uh-huh. <laughs> mun maa def black <laughs> da nga <laughs> I know. réeroon so man sama bopp sax uh-huh. boo naa faa def lu ñaw wante tan lu ma di wax gaay mo ñu na even community bi nekkul ñu ne dina wane dina security beef I uh-huh. mean dina beef security bi immigration amu amul dara lu mo def fof security wise so even situation is ça fof nga jangal gaay lan mooy seen rôle understand Four checkpoints you, mu nga xam ne uh, Euh, fële traffic light Westfield soo yooyu dafa am si cër ñu nga xam mm-hmm. euh, euh, yooyu steward vest yooyu yooyu yooyu si Angleterre mm-hmm. bu yellow wala bu green mm-hmm. that dictate people yi wante ne place yi ñoom seen boppa xam nañ ne suñ performance préféré bu baax danoo sa danoo saaga gaay place yi ñoom xam nañ loolu ñoom so it's not something lu nga xam ne mooy ñëw and it means ne loolu comme history la like yow xam nga man dama spend two thousand dollars si day match bi. Uh-huh. depuis suba maa ngi garaka. so uh, loolu laa waxoon gars yi. Uh-huh. wan ñu performance bu nga xam ne is encouraging. Uh-huh. performance nga xam ne is encouraging nga xam sax. dañoo wante yow muy coach wala yow muy président nga xam ne ah suma gars yi traité wante. nga lose amuloo performance yu baax amin dañoo sànni. so blame bi foo ko bëgg a teg si coach bi la wala si players yi. non coach moom coach rabaraba la. because he was not and there is no need nga génne fa Alaaji Sarr. sa boppam ñu ngi team team team room bi was not bi waaw team spirit bi. si play euh, si ko si Alaaji Sarr. Mhm. nekk vétéran. Mhm. nga rosi kooku. Mhm. bi ak under bi under bi. ñoom ñëpp dañu war a play benn système. so am la foofu Omar Cissé yow. Matar am. am la fa Alaaji Sarr. lan mooy essence yi ñu fa toogoon ñooñu. because ku nekk am na area. <laughs> because war ngaa am striking coaching uh, coach uh, bi nga xam ne faa nekk striker coach bi nga xam ne defee la so mhm. Mhm. Mhm. wante den seedoon so fan si doo leen blame wante ba léegi tam event ma nañ community bi tam uh, plateforme si yu fàttali yu ak ñeneen ak newspapers yi ak télévisions yi. because football war nañ ko isi. si limelight bi. ñuy waxaa gaay yi. étiquette gaay yi. fan si lu ñu def si stadium bi nekkul lu ees. Ghana Sénégal play mun naa lose World Cup final. penalty ñu dem la ko kiram. am na wala ñu saaga yaayam. wante ne tam. ñu engage gars waxaa gars du ne rek. danoo jaay ticket ne waaw. ticket bi léegi dañ ko dee scan. am nañ sécurité su loolu rek di wax bi. because ñooñu xam ki xam nañ seen lifin bi. bun xaar we have to get behind mm-hmm. the boys mm-hmm. jox leen fire mm-hmm. so da nga gis ne tikkakati sax den ne ñoom sax den slow so wante the moment boys yi get ne there is support xam nga understand motivation bi ah, dafa des dafa desoon Adama Barrow fal si Arsenal la so <laughs> bu mu nekka bu mu nekka Nina Diop you know bu mu football moom su si taxawee su si taxawee Qatar China, mhm. Mhm. Saudi Arabia, mhm. those people pour ñu bi na checki hundred thousand dollars dollars pour dugal ko si football yi Gambia bir fi infrastructure wante ne ku am xel jigee si fédération bi ku am xel nekk si ministre of youth and sports ñooñu ñoo mun a match wante su ne fi loolu ñoom seen salaire lu di lee de ñoom seen salaire di leen. da nga mën ne wrong people daal. wrong people yaa fa nekk si mm-hmm. seen ay padiem. su ñu demee maa ngi fii tey Togo. Mm-hmm. gis nga fii hôtel bi mu rafetee nii. <laughs> rafet. Eh. soo. <laughs> obvious duñ mën a win. I know I know thank you very much Buba ah li ñu def rek ñu jël coach rek den ñu ñu ñu ñu wrap up ñu dem with what's trending and then quickly ñu close. Ah, coach. the doctor I'm not sure doctor Living dinañ mën a join because maa ngi ko doon text waaye allo coach. coach coach dafa mel ni mu ngi jàpp nañ dem nañ dem quickly with what's trending then after hello, coach. Wow, Ansu. waaw coach when you just um, la nga foog ne mooy nekk solution yi uh, li nga xam ne mooy Gambian football ak tamit uh, na nga gisee attitude yi um, uh, football fans yi ñoo xam ne ñooy follow um, Gambian football and all of that. well football fans it was rather unfortunate because definitely. Uh, vandalism or hooliganism about any place anywhere. So I think even though when you are angry, you have to find another way of channeling your anger rather than the Germany I hear and try pull her apart. Mm-hmm. I think that is really uncalled for and unfortunate. Mm-hmm. But uh, as for the future of the game, I believe that it is important for uh, everybody, all of us to have all hands on deck. Mm-hmm. Uh, to look for long-term solutions because uh, like I said, and do all that. We've done that a number of times. Mm-hmm. Uh, so many times. I remember 1990, 293 when uh, Boa Balde came. The 1st mm -hmm. thing he did was disbanded mm -hmm. the GFA. Mm -hmm. uh, but again, uh, we've been running through these problems over and over and over again. Mm-hmm. So I think uh, we have to be honest with ourselves. Mm-hmm. All stakeholders, uh, whether you are a, a, a, veteran, whether you are a fan, whether you are a journalist, whether you are a mm-hmm. player now, or you're in the management, coach, or whatever, we should sit down and look at how do we grow our sport. Mm -hmm. man, I also believe ne and so mm-hmm. uh, the problem with am we have this uh, quick fix approach but xamne never works. Mm-hmm. Uh, this is why you get field over eight players. We are mm-hmm. doing all these things just <laughs> pull am instant instant glory. But what I think needs to happen moy we have to develop at least a 10 year program. Mm -hmm. A 10 year plan bo we'll stick to it. Mm-hmm. <laughs> We'll develop our game from the grassroots level mm-hmm. so that the talent that we have would be nurtured. Mm-hmm. The play would be structured so that people will understand mm-hmm. what they need to do. But for a coaches see we help them mm-hmm. to grow their knowledge, mm-hmm. but give them also the material that they need to to to to to to, to work. I think that when we do that, definitely our, our game would go uh, forward. But I can guarantee you one thing. Uh, next year, next election, we ampul GFA. I think it's in about four years. Mm -hmm. uh, I think you would see uh, a lot of people, mm -hmm. uh, credible people, who will put their heart in the in the race, so that at least maybe that will help our game to move forward. Answer. Perfect. So how about next game with Benin? Looy predict. <laughs> Uh, well, uh, from there, nekk nii xam nga ñu ko <laughs> appeal. Uh, I think that if we if we win the appeal, mm -hmm. I wanna predict ne maybe. Mm-hmm this coach would uh, at least go back on some of his decisions and invite mm-hmm. like the uh, Mr. Kohli, we play Sampdoria, the Steves, the mm-hmm. mm-hmm. uh, Hamza Baris and uh, Nakala, the, the other Barrow with Reading, get back to mm-hmm. the team so that we'll have a fresh start. Uh, but I believe ne, if they approach the Pumojel, ni Momla mm-hmm. we'll have a problem. You cannot have somebody who is playing for Sampdoria. Mm-hmm. Nga ne da ko drop because of jabaram dafa amone complications But yen nga turn around ne yaa ngi accuse Steve ne he cannot be playing for the national team because we get playing in mhm. the rational doesn't make sense. so no coach bu yokkal a player who play fifth division in England so loolu man it was just not it doesn't make sense with me. no it's it's nonsense. and that is not something that will mhm. give us uh, at least uh, four points suñu amutoon six mhm. points that's where we will be uh, we, just mhm. go to Benin. Hopefully, mhm. Naka Benin, maybe we can beat Benin and then go You never know. But I think unless we do it the right way, we'll have a problem. So Dorian and this Dugal, these personality things, mm -hmm. we'll mhm. be stuck in where we are for the next years. Quite quickly, uh, what's trending? Legi, thank you very much pour um, sa, gis-gis yoo see ci li nga xam ne mooy Gambian football. Uh, dañ la bëgg a uh, ñu ngi gis problème bi nga xam ne mu ngi nekk social security. Manjang ñu ngi ko accuse ne dafa jël um, benn jigéen bi nga xam ne dafa dem study um, ACCA um, in, in, in Ghana. am staff yi ñu si bëri ñuy complain ci loolu noonu waaye léegi ñu ngi gis reports yoo xam ne ñu ngi génn ne euh, Manjang léegi fu mu nekk nii mun naa jël certain decision towards euh, ñoo xam ne ñu ngi ko doon accuse because euh, lu mu doon def mooy daf doon def liggéeyam waaye ñoom ñu ngi koo tooñal nga ko gisee ci loolu. well this I I am glad ne uh, at least the problem as it stands has been resolved. Mm-hmm. How? I know that the, the commission will recommend uh, punitive actions be mm -hmm. taken against some of those who are protesting. Mm-hmm. So when I con the government, I will not go that route. Mm -hmm. What I would do more to give uh, Social Security a chance for mm -hmm. a mm-hmm. new beginning. Mm-hmm. Manjang would be given the opportunity to present the agenda because have the Momla um, the mm-hmm. reform agenda that he has. Mm -hmm. Why if you start going and purging people because of their protest on, to mm -hmm. me I don't think that's the way to go. But the other issue that I also believe needs to be looked at. Mm -hmm. Social Security. Mm -hmm. They have over 300 employees. So, man, I don't know what they need 300, 300 employee, employees for. Mm -hmm. But I believe that the government really needs to look at these institutions very mm-hmm. carefully mm -hmm. and do it in a way that it will be run effectively. Mm-hmm. Why, uh, to me, hey, I'm a protester. I always support anybody's right to protest, and I would hate for people to be just fired because they've protested. I believe they, uh, let this be a, a teachable moment uh, for everybody, and then uh, give Manjang the opportunity to move forward. But my my advice to Manjang too, Moine, if you are uh, instituting austerity measures, do not be found wanting, because it's very disappointing that his accusation and they had receipts. Mm-hmm. They offered them on legacy restaurant and then or hotel and then they they had to pay. That mm-hmm. that's that counters everything that people are saying about him. Mhm. But I hope the social security from henceforth mhm. will be moving moving forward and protecting pensioners' money mhm. and not a uh, situation where you just in Halisi because organize a gala dinner, the dinner a hotel and all that. But you know, it's Good. one of those. Good. Thank you very much. Thank you very much. <laughs> Uh, thank you guys. Thank you. Thank you very much. Saboli, quickly. Um, sa gis-gis ci what euh, what's bi mooy affaire yi Manjang bi. actually man bëgguma aussi na wax because from the beginning man suma position was there was no need to set up a panel. The mm -hmm. president should have taken a decision and resolved this. Mm-hmm. Fine, set up na panel, panel mm present na same recommendation. Mm-hmm. Euh, lu ma si dee na xari rek su commission demee jox president recommendation ñuy expect pour president implement exactly le panel bi recommend man loolu ànduma ah, si mhm. president amna discretion he is the CEO mhm. te coach lu mo wax si yëfi bañ a punish mm -hmm. man coach mm coach nañ find a way of waxtaan ak nit ñi ñu mhm. resolve this without unnecessary collateral damage voilà c'est d'abord wa man suma isi foog naa bi ne naa ko tay ci suba ah. anyway lu ma gis